aousubillahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim wa inni u'iizuha bika wa zurriyataha mina sheytaani rajim rabbi aousu bika min hamazaati shayaatini wa aousu rabbi an yahduruni sadid lisaani nawir safi amaani wa zid baraay mbokki jullit yi mbokki taalibe yi seen mbokkum taalibe Mouhamed Bachir Cissé moo dellusiwaat ak yéen ci talaata yi Cheikh Babul Mouridine di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi jàkkaarloog télé bi di Touba TV la télévision qui nous rassemble waaye nag ci biir réew mi ak bitim réew yëpp ñu di leen di nuyu ci di ñaan nuyoo li mu làmboo ci ki nga ngëneel yàlla nekk ci yéen ak ñoom ñëpp barke Seexul Xaddim waaye di jiital ci nuyoo bi nag Cheikh Muntaxal Bachir di ñaan suñu borom yàggal ko mbir waaye Serigne Modou Moussa Fall moom Serigne Modou Mbenda di ñaan suñu borom yàggal ko loolu waaye fayal nu nag suñu jàmbaar ji sëñ Cheikh Fall jëmb ah, mu mel ni nag ñuy wettali bu baax nag suñu baay bu baax bi ñu koy ànd ak di baay Jamil nga xam ne bu ñu agsee ci jotaay bi moo koy léemu tàmbali liggéey bi yàlla dogal nag tey mu am ay tuuti téq téq rek waaye xam naa ne dinañu dab ci yoon bi mu mel ni nag ñu am ci sunu ndeyjoor eh, sëriñ si la Baye Fall nga xam ne kenn dootu ko présenté waaye nag ba tey eh, eh, Serigne Massahir Sylla nga xam ne ñoom ñaar bokk lépp nga xam ne kenn dootu leen présenté mu mel ni nag tey ñu war a waxtaanee Serigne Ablaye Fall Ndar te yàlla dogal nag ndeysaan sëñ ab laay ñuy ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu te wér waaye nag di ñaanal bu baax nag Alaaji Mbàkke yu fay jëruñu ndakaaru ak li ko wër di ñaan suñu borom mottali ay mbébétam barke Cheikhul Khadim ak ñun ñu boole ñëpp nag noonu soxna Ndey Njaay eh, sëñ Mbàkke Mbooj Seydina Jibril Ndaw ma ñu nekk ci régie bi sëñ Atumaan Pape Cheikh Bey jëruñu caméraman yi waaye nag kenn du fàtte suñu coordinateur eh, du suñu bàyyi Cheikh Samb waaw ah, mu mel ni nag eh, sëñ Silla nga nuyoo ak mbokk taalibe rek ñu jàll ci des ci liggéey bi looy nuyoo ak mbokk taalibe bi mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah maa ngi ñaanal sëñ Muntaxa sëñ Basiru xalifa général de Murit yàlla yàggal ko fi loolu te wéral ko amiin barke Seexul Xadiim maa ngi ñaanal bu mag nga xam ni mooy sëñam di Modou Mbenda yàlla wéral ko te may ko fanu gudd mu jekku ndigalul sëñ Muntaxa amiin maa ngi nuyu sëñ Falloum sëñ Modou Aminta Fall doomam ji bëgg nag nuyu ki nga xam ni moo tax ma teew fi tey di sëñ Mortala Falloum sëñ Ablaye Fall Ndar di jàmbaar lool di ko bëgg maamam di ko niru baayam di ko muñ dooleel ko nangoo toppee ñun fukki at day ànd na ko magam ju baax ji baala ci manki wul mhm. seigne Modou Ablaye Fall gor sa nga xamni mhm. lu masam yalla la ko jox mhm. ma ngi nuyu ab am seigne Cheikh Bintu Fall mi nga xamni moy khalifa seigne Modou Ablaye Fall dar ci nuyu seigne Abdoulaye rakam ak seigne djili ak mbolen ko xamni da ngay na bok seigne Modou Ablaye da nga top ci ginaaw seigne Cheikh Bintu ma ngi nuyu seigne Babacar sila la sama sëriñ ginaaw bu ma wa waa télé bi maa ngi nuyu Alaaji Mbakki Fay ni nga ko waxee léegi. Mhm. ndax fii daaraama. Mhm. ku fi nekk rek moo la fi teg. Mhm. maa ngi nuyu seex bala Samb. di nuyu personnel bi yëpp. ak ñi nga xam ni ñoo tax wax di sori. leeralkat yi. Cheikh Papa Bey. di la nuyu yow Basiiru ndax yaa ma jottali kàddu sëñ Mortala. sëñ Mortala doog maa woo. maa ngi ñaan sunu borom nag. li mu fi indi. ñu wax fi kàddu yu sell yoo xam ne ku ko dégg boo ca nekkee wéyal boo ca nekkul jéem caa ne ndax nga wéyal maa ngi nuyu sëñ Massaye Sylla mi nga xam ni ñoo bokk benn bàyyi sëñ Abdoulaye Sylla nu meññ sëñ Moussa ko meññ maam Lamine mais ànd na nag maam Serap Fall moo ko meññ di nuyu njabootu sëñ ci la tafsir mhm. doom yi bàyyi suñ maam ja euh, tàmbalee ko ca sëñ lim si la sëñ sumbul si la mhm. ak sëñ Babacar si la seen doom ak mhm. mbooleen ku mbokk sëñ ci la taf si jërëjëf mhm. macha allah macha allah suñu bàyyi si la Baye Fall euh, nuyoo bi am solo lool euh, waaye nag nuy char bu baax nag euh, directeur port autonome de Dakar bi nga xam ne fa la ñuy yeewoo waaye nag di char mbooleem directeur sectoriel yi ak soppe yi nga xam ne ñoo ngi fa ñëpp nag waaye di ko jaare ci daayira Masaalikul Jinaan Eh, noonu di siyaar bu baax sëñ du Diagne sëñ Lidi Thiam eh, madame Ndiaye Kumba Mbay soxna Xadi eh, Bey ak ñëpp rek ndeysaan ci wàccaay màggalu Poroxaan bi nga xam ne daanaka murid di kenn toogatul ñëpp a ci wàccaay bi mu mel ni sëñ Sylla sëñ Massaer ndeysaan yàlla dogal nag ni ko sëñ si la waxee léegi rek ngeen bokk sëñ Ablaye la ndeysaan waaye yow ñu miin la lool nag ci waxtaanee sëriñ bi waaye ci yëkkati turu yàlla mu mel nag ñu aadoo Eh, maanaam bu nu accès ci kii yëkkati turu yàlla moom dañuy sàkku maanaam mu yëkkati turu yàlla ba plateau bi am nu def te miin la ci lool nag maanaam ba noppi nag mu soog a nuyoo mbokki taalibe yi looy nuyoo mbokki taalibe yi. ci góor La ilaha illallah. Lisan. Cik. Hmm. <laughs> lay isaan isaan ndeysaan billaay fal sant góor faal mu rame xam nga baa faal xoti leer faal ndeysaan laa ilaha illallah nuyoo mbokk taalibe yi suñu ma seer ah, lii de amati na solo lool ndeysaan ndeysaan ndeysaan. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci yeneen bi. sallallahu alayhi wa sallam sang Muhammad sallallahu alayhi bu baax. Serigne Touba mi nga xam ni. Mm-hmm. Mm-hmm. mooy sunu lépp. Mm-hmm. di ko méngale sunu bépp noo mhm. ay di siar bu baax mhm. di jaajëfalaat bu baax mhm. Cheikh bu Mountakha khalifatul am di ko ñaanal Mbàkke mu yag fi te wér di siar sem di fal mum seigne Modou benda mum mam Cheikh di ko ñaanal mu yag fi lol te wer ay di siar bu baax a baax a baax sëñ Talla moom sëñ Ablaye fal Ndar mum mam Cheikh ibrahim fal di ko ñaanal mu yag fi lol fal te ànd ak di nuyu bu baax sunu Khalifa, mhm. di sunu sering, di sunu mak, mhm. muy serigne sila la Baye Fall yàlla dogal ni mom ak mom jotaay bi mhm. muy sunu lepp nak moy sunu reference moy sunu idole moy sunu dok deug la euh, di nuyu bu baax Cheikh Mamadou Basir yow mi nga yatah, tay ya tax jotaay bi am ñu ngi lay nuyu te di ziar siyaar di jaajëfal ñëpp rek waye di nuyu borom kër gi di alaaji Mbàkke yu fay di ko ñaanal sama borom yàggal ko te wéral ko te bàyyi ko fi amiin barke si lu mu yéene liggéey sëñ Tuubaa ko amiin amiin ci doole maam Sëriñ Fall waaye di nuyu sunu sëriñ mhm. moom sëñ Bay Silla mhm. mu toogal na ci liggéey bee mhm. nekk fa sëñ Taala seen dal yi ñoo làng ndeysaan saa bu añ bi ñëwee ndab li day dem sëñ Taala moom sëñ Bay Fall Ndar kon loolu du tey démb la diggante sunu maam ak sëñ Ablaye Fall Ndar ak sunu wayjur ak sëñ Ablaye Fall Ndar ndeysaan ndeysaan kon ñoo ngi wàcc foofu rek ba si ba Cheikh Basirou ndeysaan ndeysaan dinañ ci ñëw rek di nuyu waaye si la maanaam dañoo seetlu turu yàlla nga jekk ko lool te man ma xam ci dara ba nii feeñu ñu bokkoon muy gox ba di géejawaay ba tey am na ñu la fay roy ci tudd turu yàlla ne jërëjëfe Serigne Touba maanaam loolu looy yëg la wala naka la ñëwee Cheikh tur yàlla yi moom dañ ko fay fekk mm-hmm. koo xam dara ci ci la mm-hmm. di nga xam ne ñu man di ci seerafal ak tur yàlla la alhamdulilah mm-hmm. loolu bu noonu kii xam na bu baax li may wax ne ci loxoom laa gane jamono sunu wéjur sëñ Ablaye su ma masaana tudd yàlla danaan dem na jàkk dem nay sëgde bilaay daan ne ma nanga ko jàpp te fonk ko ni ma lépp ngi ci sama wax ni daanaka doo dégg kàddu gi waaye su ma yëkkatee bi ma bi tur yàlla suma ko yëkëté kenn ku ne dina ko yëk oh mhm. kon loolu fi lan ko fekk mhm, mhm. waaye lu may lu may yëkëti nag maa ko jëlal sama bopp moom damay tëdd ba guddi rek ñun ma waxal nangam ma di ko wayante sama téye micro lu ma jëkka tante bu ma jëkkaroon rek loolu laay sikkar ndeysaan maa ngi ñaar fukki er ak nangam bilaay bilaay bilaay bilaay bilaay bilaay waaye ko téye ak léegi nag du ñaari fan du ñetti fan eh, waaye waaye fi ngay sikkaree moo kawe ba man dama naan sax boo bëroo maanaam boo yelloo doo mën a bëru loolu moom waaw da ngaa am looy tàggatu ci baat bi wala yëg-yëg la rek du ñëw am ku ma commencé wax ni ma eh. fi nga fi nga fi nga fi nga fi nga war a yem mhm. fa nga tàmbalee kon fooy jàll oh mooy laaju ñëpp ne ko déglu ko rek mhm. boo ko dégloo di nga xam fi may jàll bilaay bilaay waaw ah. mhm. moo tax waa Kaolack dañuy wax ni gars yi dañ koo yemale fii sëñ bi ñëw sës ko ba mu sës rek cee loolu nag du noonu Cheikh Fall la moom la de boo ko téye te foo loo ci bëgg a def ma naa ne. ndeysaan ndeysaan yàlla day ànd ak sel. Mhm, mhm, mhm. képp ku ko teg ko fi maam Serafal bëgg. Serafal defal la dooree biir. cee bilaay la ñu. bilaay bilaay Seynou Mballa maam Ndiaye ndeysaan. ñu ngi lay jaajëfalaat bu baax macha allah si la euh, di kontaanaat bu baax rek euh, ndeysaan di ñaan rek suñu borom def tawféex waaye di siyaar sama gaa yooyu ndeysaan euh, ñoom sëñ Ali ak jëwrin yi nga xam ne yàlla dogal na. Eh, maanaam yow yow nga jaboote ñu ñun ñëpp ndeysaan sëñ moo di maar ak gaa yëpp nga xam ne ndeysaan samay wëllër lañ samay xarit lañ ñu baax lañ ñu bëgg lu baax lañ ndeysaan te bañ leen xamee ba léegi ñu miin leen rek ci wax dëgg yàlla nekk ci sa keppaar te yàquñu ci dara kon yàlla yàlla eh, dolli seen jàmm yàlla na yàlla dolli seen wér yàlla na yàlla defal tawfeex barke Cheikhul Khadim ñuy dalaat bu baax rek eh, sunu baay bi ni ma koy waxee baay Jamil nga xam ne liggéey bi ciy wéttali waaye nag xam naa ne eh, eh, maanaam ñu mu nuyoo mbokk taalibe rek eh, ñu soog a jàll daal di léemu jotaay bi nag ndax day mel ni moom maanaam ñun moom lañ fi nekkal kon bàyyi jami looy nuyoo mbokk taalibe yi bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yaa muhin weka nastahin mhm. laa xawla wala quwata illa billahi al azim mhm. subhaana man yafxalu maa mhm. yasaawu fii maa yasa wala xool insa u mbokk yi ñu jàkkaar lool ci Touba TV réew mi di ko génn mu ngi leen wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh gannaaw nuyoo boobu itam ñu ngi ciy toftal siyaar kenn ku nekk gannaaw ko nuyoo bi nuyoo bi nuyoo islam ñu ngi koy siyaar siyaar ba yell ca moom mhm. ci góor a jigéen mag ak ndaw mhm. képp koo xamante ni jamono ji mhm. yaa ngi jàkkaarloo Touba TV ndeysaan di ñaan sëñ Mountakha yàlla yàggal te wéral ko karton carton yàlla ko seigne amdi mourou ben benn Fall yàlla ko sëñ Assane Modou maam ca Daaru Xaboor ak mboolem taalibe yi yëpp di nuyu tam euh, alaaji Mbàkke Fay du ko ñaanal yàlla fa ko tawféex amiin barke ci xaballa sàmb di leen siyaar bu baax a baax parce que ñu baax wax le siyaar di la ñoo la koy delo bu baax jaay ñaanal yàlla dafa la tawfiq amin amin lam ko yalla bolé amin amin di nuyu serigne Silla may Fall ndeysaan ñoo koy siyaaru baax a baax mm-hmm, mm-hmm. ba ñaante yàlla wéral ko mm-hmm, euh, dafa ko fatu gudd te gën ko doole kattan dara jëpparoon tubaab dara Cheikh Ibrahima Fall suñu ma seet a siyaar baax a baax moom tam euh, la ñaanal ci loolu nga ne ci tur woowu ak yi ci làmb yëpp yàlla dafa la ci lu koy njort amiin amiin barke Cheikh Ibrahima Fall di nuyu nag sëñ Talla Sylla donc suñu xarit suñu wëllëre doon ndeysaan ndeysaan daa wàcc la gépp suñu wëllëre doon di fàttali suñu waaju baax bu fay yàlla yàlla yokoy leeram amiin Amin. Seex Xaadim Amin. Amin. Amin. dafa ko barsax Amin. doon dafa lay ak sëñ sëñ sëñ bu baax mu àndalan Abdourahmane ci laala Fall ndeysaan ndeysaan ñëpp nag maa ngi siyaata waa Serif Lo ñu ñaanal siyaar yi ñëpp di xamal ni tam mm-hmm, insha allahu taala waa Serif Lo bis ba dimanche samedi jii di ñëw la mooy màggal Serif Lo ga fa sëñ Tuubaa di ko woon maa bi mm-hmm. samedi jii di ñëw la kon ñu yëgal ñëpp rek daraja borom Tuubaa macha kon nuyu nañ ñëpp daal di sant ñëpp di wax ne dugg ci bismillahi rahmaani rahim mm-hmm. eggal ci alhamdulilah rabbil alamin amiin barke Seexul Xadiim yàlla lépp ànd ak ndam ci dara ci Seex Faal siyaar bu baax tam sëñ Maari Mbuub mhm. ca benn barak taal bi suñu wut la ndeysaan bu dëggu rek ñu ko baax ah, moom daal ñu santaat bu baax rek eh, suñ xel gën naa dalati eh, waaye Baye Jamil dégg nga sëñ Massaer ndax ba muy yëngu fekk na ngay waaw waaye yëngu bi daal xam naa ne mel ni na daal maanaam ana yow lan nga ci mën a waaw waaw ndeysaan eh, sëñ Massaer day mhm. xam nga bi mu nekk daal. waaw. Euh, dañu inal xawaay de xanaa xaqaay di. Mhm. ku fas ku ñëw fasoo wëñ ko moros ma jagadi. moros ma jagadi. Mhm. kon Pastef. moo mhm. jiitu lépp. lépp daal di dugg. ànd caag Pastef. parce que yéen waa caag fo. maanaam faaw nga njariñal loola. Euh, te baat bii la da ca raw ndax moom moo ëmb lépp moom mhm, mhm, mhm, ndax lépp yàlla mën nañu ci laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ndeysaan ndeysaan ci la lépp ne moom moom lu baax lu ne moom ci mi ngi ci biir laa ilaha illallah ndeysaan ndax képp koo xam mën a wax ndax tey li julli gi màgg màgg ku doon julli te waxoo laa ilaha illallah amul julli suñu sigg moo fa ku war weeru koor weer wa jeex te waxoo laa ilaaha illallaah xiif mm. fa am waaye wóor ku dem màkka mm-hmm. wër ko na ko yàlla santaane lépp mm-hmm. te waxoo laa ilaaha illallaah mm-hmm. da nga doxantu ñu woon waay waay waay aji woo kon daal li wétu mooy laa ilaaha illallaah Muhammadu moo ëmb lépp nag lu ñu nag mooy dañ ko détaillé waaw leneen nag a doon la mu doon kon nag képp ku yàlla may comme nii mu ci nekk nii te ni mu ko waxee mooy dëgg kon ëpp naa foye gis nga gone yi bëgg nañu lu baax ñu ci bari ci ñoom waaye am na ci loo xam ne dañ ci am ak réer ñàkk xam jar nañ ciy dimbali ndax léeg-léeg tam ñoom Euh, nga romb sikar boo xam du sikar du sikar ak tëgg moo xam du tëgg ak tam bu ñuy sikar fii tam am ñoo xamante amaa nekk nañ ci lu bëggul ak sikar loolu tam nañ ko ci nañ ko daw ndax baal bi dafa rëy màgg màgg goo xamante ni jii ku yàlla may nga maanaam caaxaan caaxaan maanaam foy foy woo mu xiir la nga rajo ci barab ngeen tudd laa ilaha illa li ngeen def dara fii du ko kaw ndax rasulullah sallallahu alayhi wax ni afdalu maa xultu wan nabiyyu min ba'di min qabli laa ilaaha illallah rasulullah ne li gën ci li may wax man mhm. ak mboolem yonent yi ma jiitoon yëpp mooy cent vingt-quatre mille mhm. li gën ci wax ji mhm. moom ak ñoom moo di laa ilaaha illallah kon nag baat la boo xam ne que mën ngaa nit milliard ne ko wax du ko mën mm-hmm. la kon comme ñoom a ceew nag yàlla la dimbali dara gis nañ ndeysaan kon jërëjëf macha allah <laughs> macha allah Baye Jamil macha allah ndeysaan am na solo lool wax dëgg yàlla ndax eh, li ñu ci indiwaat eh, maanaam njàngale la moo xam ne eh, maanaam xanaa ko ko déggul waaye ko dégg mu jariñ la kon sëñ ma Massaer di la gër santaat bu baax rek di rafet rafetluwaat sa taxawaay xanaa nag mu mel ni tey yàlla dogal na Eh, maanaam gannaaw bu ñu amee ndigal ci eh, Serigne Momar Talla Fall moom sëñ Ablaye Fall Ndar maanaam ñu war a waxtaanee tey Serigne Ablaye Fall moom Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridine mu mel ni moom nekk na ñetteelu xalifa Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridine waaye nag mi ngi ko nekk 1954 ba 1975 waaye di doom ci soxna Fat Fall Wadd waaye ñoom ñaar ñu bokk Serigne Modou Falilou Fall ah, mu mel nag tey ji ñu war ko waxtaanee eh, si la ana loo ñu mën a indil ci Serigne Ablaye Fall Ndar. Serigne Ablaye neex a xam la woon. ginnaaw bi ma nuyoo sëñ Jamil Diagne murid sadix bi ak loo yàgg ma moom. sëñ Jamil. am na moom ñeent fukki at. am na lu ma xam ci man. am na lu ma xam ci moom. alxuraan xasida ak mel ni lu dëddu àdduna ba seexlu ko moom laa ma sa xam ci moom ndeysaan musuma xam ci moom daray caaxaan ndokk yàlla bëgg sëriñ Tuubaa ñime dëggu mhm. mhm. roy Seex Ibra Faal mhm. ndax boroom xam-xam buy bu buy bu gëm Seex Ibra boole ko sab xam-xam day ay cër xam-xam cër la nangul Seex Ibra Faal cër la sëñ Jamil mii nag am na xam-xam gëm na Seex Ibra alhamdulilah loolu laa ko nawee mhm. mhm. ay kese kese kese mhm. ma fenn man moom sëñ Ablaye Fall ndar nag Seex Ibra Fall ko jur sëñ Fallu Fall mi bokkal ndey ak bàyyi mu des quatorze dix-huit mooy taawub Seex Ibra Fall ci góor ndeysaan sëñ Moussa Fall doon na ko sëñ ndar weccee sëñ Moussa Fall sëñ Fallu ne ko dan daana ko bës di ko bës di ko bës ba aw ñaxam jóge ci ab jëm toq si Moussa Fall ci yaramam mhm. ci koo bokkal bàyyi buy sam nawle te bokku leen ndey mhm. mhm. sëñ Moussa ni ko Ablaye mun ko Fall mun ko li ma laal lan la mun ko damaa ñàq de mun ko demee weñ sab si leen maa te bës ma laa ilaha illallah moo tax di sëñ mu ramita Fall toppee sëñ Ablaye Fall daal ginnaaw boo sëñ Mortala Fall nelawee yal na yàlla yokki leeram sëñ Aliou Fall Mbawar dafa wax ni mu doomi te nungul na sëñ Ablaye ba ku xamul na ngay defal ni da koy lebal te da koy fay bor te kuréwaay ndax sëñ Ablaye Fall daal mii sëñ mu doomi te topp nungul ko lii mu ko nungul nungulal na baayam sëñ Moussa Fall lu raw lu mel ni lii ko sëñ mu doomi te Fall nungul muy loo xam ni réew mi ñi xam loolu bariwul mhm. Mhm. te mag moo wax ak man man sëñ Ablaye mhm. dafa amal xaas amu fit mhm. rëyub juddu am kësu ndeysaan lu ma la wax nag lu ma mun tewaat mhm. sëñ Ablaye ku mhm. xamal lu ko waxul la ku ñëwee wan engagement la ku bëgg ni magam la ku gëmal baayam la ñaar fukki at ak benn la toog xalifa te lii ma lay wax xam naa ci dara ndax addina ñin ko ci tudde sama bàyyi ci mag ba mu ne jangeet mun ko def naa la ngay sama samp bawal te man jiili sama samp góor du ko fil bawal gépp sama bàyyi fa man néew mo fa gën de mo moo fa man kii toog di sama rak ñu bokk benn bàyyi sama ndey dib aawo ndeyam dib ñeenteel ñoo gën tuuti mir ci sa bàyyi jur ay rijaal rek la jur lay ndax ku liggéeyal yàlla jur góor yàlla koy jàng di jàngale am doom jàngal ko mën nga am kaang mën nga fóore nga am mën nga am cey kuy jàng di jàngale di julli di wérd boo amee doom yar ko ca la nga doon lay doon boo dee ñaqal sëñ bamba di ko jox sa wërsëg ay rijaalu laahi ngay jur isaan sëñ Ablaye Fall Ndar mu sëñ Mudu Ablaye Gorsa borom xam-xam ba ca taar ba Baye Fall yi kenn ñaawul mhm. waa na ku ci dàq sëñ Mudu Ablaye ab taxawaay amul ba ci njabootam mu gëm baayam ànd ak sëñ mu deminta ñu di santam sëñ Cheikh Khady ngay dugg ci seen biir ndeysaan benn bés la sëñ Ablaye na ci ndigalu sëñ Fallou ca mun mun lóob ñu ñetti junniy saako ceeb ci biir ndox mi génne ko góor yàlla yi godd yeeg yooyu di màtt ba niwi sëñ Ablaye di leen xooba ak mu yërëm neen ni leen yéen ñi def nii ceebu sëñ Fallou bi dem naa seen xalimay bàkkaar laa la illallaah kenn ci yéen dootu jëf bàkkaar bu yàlla bind ci dina ko nekk ëllëg. génn koo yuuxu. ni ko loolee tey laa ko mës a dégg. ma sori la man. mun ko xanaa xamuma jox ma sama caaku see. su ma soxee sama gënn gi taal ko ci jantum siiséer bii nga xam ne lu ma wax Cheikh Rafal def ko su ma ko mënul lu ma wax du dëgg. te sëñ Ablaye laa la wax de. ñu jox ko caaku si mu sox ko. tooyal baaraam day dëpp ko ca gënn ga. bi mu ko joxañee nii. fekk lu jublu de day nii rek mu yëngu mu ëf ko. ni ko sarsam ndey du wax lu yàlla deful. bilaay du ma wax lu yàlla deful. <laughs> waxoon na suñ mu dab laay. jur suñ taala jur suñ bas. jur maam Cheikh Ibrahima Fall mii nga xam ni mooy loxol ni joorul suñ taalam suñ Ablaye Fall dara. Mhm. Mhm. yàlla may ko juddu may ko fit. Mhm. may ko wërsëg. lu maam jox magam kon bo ma woni ma lo xam seigne ablay seigne ablay man na ci fane wax ba beut sam du jeex ndax lan da ko ci gewan nak sa baye ak sa mam kere bi bi seigne mortala wuto seigne musafal ñetti at la tok bu jullu yote rek mu kabbal sa mam di doomi soxna di fourier mo ju sa baye de diko ma man kat da la la tay seigne mort mu ko ha ah. mu ko man dama gis nga nekkal cheikh ibrahim nun doomi soxna yu ñew ci yow baye julli baye wor te bu julli jotté rek nga kabbal te doonu soñu bu noddee nga yeesal sam njàpp doonu soññu te loolu jaaxal na ndax sa maama sa bàyyi ñu julli mokkal nañ alxuraan tafsir ko ànd ak Cheikh Rafaal di liggéey sëñ Bamba ba mel ni danoo sàggane julli sëñ moo tax saa sa maam Moussa mun ko faal mun ko àbb fasu jàmbur suppi jikko ji lu ma ci fekk nii ma mel sëñ Bamba waaye ni ngeen mel Cheikh Rafaal la sëñ moon nag sëñ ba Cheikh ko meññ jox ko sëñ Bamba mu yar ko ku sëñ Bamba yar ku ne boo ñibb si da ngay indaale jullee gu ak sag saw xef mhm. ak maanu mhm. ak loo am jox ko nit ñi mhm. moo tax sëñ sëñ moo talafaan yi Cheikh Khadim bëkk démb lan tàggoo muy waajal premier mai boo ko xoolee da nga naa sëñ Fallou jur bàyyam lii daal bàyyi faal yi mel ni man nii sëñ bët xaw a xaw ma ñuul ñime dalul ñooñu bu dee bu doxee romb rek xam ay yaaram la nu ndeysaan ndeysaan maam Cheikh dani man sëñ Mor mu niru ma ma jox ko sëñ baaba mu yar ko mooñ cëram yi ak xar kanamam bi ba nirutu ba dara lu ab xar kanam cëram yëpp sëñ baaba la nirul mhm. mooy Seex Xaadim ñoom ñii daa naka niru wuñuy Baay Faal ndax yar gi sëñ baaba yaroon sëñ mortaala mhm. bu masaa di dugg xalwa day tëjuwaale sëñ mortaala te moom daanul laaj ku la jur ku la yar la daal ku la yar nee na gone ndab la loo ca def moo cay ne mhm. sëñ Abdu Xaadim sëñ Mortala ko yar. sëñ Bassirou Fall alxuraan. Mm-hmm. sëñ Mortala ko yar. Mm-hmm. sëñ Moudou Minte Fall. Mm-hmm. sëñ Mortala ko yar. sëñ Cheikh Fall Khady sëñ Mortala ko yar. ku la gën ku la yar moo la gën. moo la gën. sëñ Ablaye. war na déggoo mu ni Cheikh Jili doomi soxna Faati Wadd. ñun gars yi nan ko fonk buñ ko jàdd. kuy jébbu soo raamal mu dal di lay buusu mbër maa ngi maam làpp bu leen ko weesu. Oh. لوقت فجر عبد الله من نوره جنة فضل الله مولم أرابي أكنار نير المعلوم صباح فالق من تقولين شيخ شيخ جيري مودي بروم أقيخو مو يرغمك أبا بكر صديخو شيخ جيري باي مود مو غم بامبا مو يرغم عثمان بن xawaal kàddoom ko tal na ekkanu lil xarsi ak jëbaroota jëbaroota kursi yaa gore yaa maanu te yaa jàmbaare yaa dekkalaat lislaam ba ñëpp maare yaa jaay ba wante lamp yaa ko ràngoo teraanga yaa tedd nga yaa fonk nga ndigal yaa boole ñëpp damb yow lay màggal te Cheikh Abdou yaay semaine de feeru l'islam bàyyi faal bu tàdd gaal gi dékk jëm saam te yoonu saam wa tiis na ak nattoom yaa jégam yaa xam-xama na leen ko sàmm topp ci Abdullahi dem bëgg ngeen a gisee xalilullahi ittewu leen te xam ne dunyaa jeex na ndigal lu màgg laa ngi nii mattal lay wi na nun gaa yi nan sàkku ngërëm te booloo ndax yàlla may nu relal ak i mbooloo ilaahi amin daa yiti muy def yi bàyyi faal bi xamante ne mu ni kay Seex Ibra Faal xanaa xamu ni Seex Ibra Faal mooy sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa sañ sañu sëñ Bàmba la kool mu dib ndax murit sax ko Seex Ibra Faal murit bu muritiwul da ngaa gëmul Seex gisoo kii moom a gën a bàyyi faale mhm. te murit la mhm. julit taalibe murit Baay Faal Baay Faal yaay ne ca kaw bu ko ñu mi wuta wax ab ragal nga jullit bu dox mooy taalibe taalibe bu dox mooy murit murit bu doxee Baay Faal nun ay Baay Faal la nu moo tax amul complexe ndeysaan damay waxtaan ak ko jàngi mel na lu ñeme te ñemewul ndax jàng na ba xam waaye ragalul yàlla jaamuwu ko moo tax amul ku génne ENEA wala ENAM yor say diplôme kenn embauché loo wu la nga liggéey boo weer wi dee fay fayi ko moo jaaxal ñu boo jàngee ba xam mm-hmm. da ngay jaamu yàlla ragal ko lu ko mooy doo am mm-hmm. jàngoo xamoo taxaw nga ak wàlliyu mu digal la nga def mu tere la nga bàyyi da ngay xëy fees dell mm-hmm. bitéelu bitéelu diwu ñor ci moroomum bitéel ba wàlliyu ko gën a gaaw ci kum gërëm nit ñi xamuñu li xew te maay wax ni ku xamul li xew doo mën a xew ndax ci biir li xew lees na xewe sëñ Bamba xew moo xew de jeeg bu ayee ba figal raxase na ba mu dëpp toog ci maanaam di tey fu dënnu mu nga xiif di ko xaaraan bàyyi jeeg bi reyu nagam di tànn ceebam di ruusi fooy lekkee. ca jéeg jiiri baax daal laayee. Mhm. Cheikh Mati Yàlla sëriñ Faas laayee. Mhm. sëñ Bamba a maanaam Touba Njaareem ku ko xaaraan dootoo suur. dootoo suur de dootoo suur de. bul xeeb kenn. Mhm. bul béccigel kenn bul xas kenn. waaye waxal li xew nag. sëñ Bamba du moromum ñii. soo ko doon wutal nawle da nga naa jiili. boo ko dee wutal nawal neel Cheikh Ahmed Tidiane ci sëriñ Cheikh Laas boo ko jógee neel sa Saliou boo ci jógee neel Xaadim Rasul bilaay euh, bàyyi si la euh, bu ma juumul euh, maanaam sëñ Ablaye Fall Ndar nekk na fi di Cheikh Ibra ñaar fukki at ak benn waaye yaakaar naa loolu ku ko wax ci koo xamante ne nii 1954 nga fi ne di Cheikh Ibra day mel ni sañ ñoo wax digganteem ak sëñ Fallou loolooy Touba di bisimilah diggante digganteem ak sëñ Fallou mm-hmm. xanaa xamoon si Ablaye boo gisee mu garaaw. bi Touba soxlaa jëf dëgg dëgg dëgg xalifa ak sëñ Ablaye la dajeel. laay mu am wërsëg amu fit. gëm ndigal. ñu di ko jox. mu di ko dóor muy daanu muy am ngërëm. baa xam nga ni ku la ëpp ndigal moo la ëpp ngërëm. laay garabu ndigal. mooy meññ doomi ngërëm. ku jëmbatul garab gi su xotlee woo ko ku jëmbat doo wecc doom bi. feeg ndigal di am ngërëm di am. bu ndigal noppee am ngërëm dootu am. Mhm. gaa yam ca ndigal la fi mu ne. Mhm. sama xalifa sëñ Babacar Si la ñoo bokk ndey ak baay mu bokk ak kii benn baay damay wax ni sëñ man ko faal mun ma ci li li ciy dem góor yàlla yi di ko lekk ku ci participer ba yëg ko yaa ngi ñuy liggéeyee yam man kon féete wooraa maa gars yi dépasse bi lu nam yónnee la man mën a tuba ci ciment bi dara ndeysaan mën a tuba ci peer yi dara kon bu ma amee wërsëg naa jox ñuy lekk ñu lekk ba suur naan attaaya naan café dem dóor mu daanu ndeysaan ndeysaan sëñ Ablaye moo liggéey jumaa ji ma wax la ko tey loolu yàlla dogal sëñ Ba maa ne woon jumaa jii mooy kër yàlla ku ci feeñ dootoo nëbb ku ci nëbb dootoo feeñ sëñ Ablaay ko tabax ce moo toj xeer yi ginnaaw sëñ Mortaala loo fi gis mu taxaw rëy sëñ Ablaay Fall dal sëñ Fallu ak sëñ Ablaat dóor la gis ni sëñ sëñ ba sëñ Fallu dem àjjana mu langoog sëñ Ablaat du ba dem àjjana laay yàlla ko yàlla fayal te kat jëf sama baay ne tànk boo góom du am liggéey de ku la gën a mittib góom moo la gën a leerub liggéey bilaay murid yi fii nu ko dem fii murid yi dem euh. ay àlluwaa ki bi euh, xalima yóbbuwul fa de ndeysaan sukk fa de mhm. sëñ Baba bi muy wootee mhm. dafa wax ne ku fi jàng képp indi wala wutal foo ko defe ji kon andi na lu jàng mhm. moo tax ma bëgg ñu xam ne cëriñ ji am njàng la murid gi jëf la jëf la de maa mas di waxtaane maam Cheikh ñu ni maam Thierno mu ni man ni déedéet bokk nu ligne. Cernoy deesem ci sëñ Bamba. nee ndawal sëñ Bamba maa jëkk sukk maa mujj a jóg lu ci góor ci bi xam naa ko. cëriñ gi. maam Cernoy deesem mul gi. Cheikh Rafa la première bu leen leen jaxase. nit day am xam-xam baa mu laaj ko am xam-xam doo ko wax. maam Cerno ak Cheikh Rafa bokk nuy domaine. Cheikh Rafa murit la. Cerno sëriñ la. waaye bañ a gis kër Cerno bu ko fekk kër sëñ Tuubaa. dafa kër sëñ Bamba dara nekku ci kër Seex Ibra. Ah, waaw waaw. wax nag bagage sëñ Bamba la yor nag. bilaay <laughs> ndeysaan. man. Uh-huh. du ma ragal. Uh-huh. ndax dan maa dimbali. Uh-huh. ma xam loo xam ni ku jàng te jaamoo yàlla mënoo koo xam. ndeysaan kii mën na waxtaan moom. waaw jàng nag. ndeysaan liggéey la sëñ Tuubaa. ragal na yàlla. ndeysaan ndax kii yëg di wax. kii nit ki nii te yëgul. du déggoo. ndeysaan bilaay bilaay duñ déggoo. bilaay ma kenn ba ñu ma kenn. waaye man damaa giñ ci sëñ Bamba. la ci la tëfsir waxal sëñ Bamba. ku am xam-xam di ko ko wax. yaa am la bëri. Mhm. yaa am la bëri wujulil bëri bëri sa xay sa ji la mhm. wujji. sëñ Bamba ne ko lu say tànk mun ko wuy si woote yàlla. fekk góor ñi lan ni sëñ Bamba maa ngi woo jéeri ji ak ndox mi sëñ ci lu tafsir ni déedéet. noonu mhm. ñu jàng ba géeju. ñooy géej da ngay dégg ñu ah géej la xam-xam baa tax. te ki jàng bu dee géej gi jàngul jéeri la. sëñ ci la ni sëñ noonu ñu jàng ba géeju lay wax ak ñu jàngul di jéeri. nee bu ñëwul ci géej gi léegi dootuñu màndi ba mu demee juróom-ñaar fukki benn juróom-ñaari weer la am sëñ Bamba am juróom fukki at mën na koo meññ. mun ko luy say tànk mun ko wuy si wooteem yàlla mun ko ah mënoon a beru woote mun ko damay bañ a beru woote du ma xam fu ma jëm du xam fu mu fu ma jëmee mbooloo mi. sëñ Bamba ni ko xalsal naa am ñu mu dalal lëkk. oh. laay laay la maa la gi ñun ci alxuraan ni mi mel num sëñ Bamba fi am ndigalul woote. Mhm. ndigal. amari nii rabbi yàlla a woote loo xamal na ma ni maa wéeru waay bi du daanu ku wéeru ci man doo daanu mu ni ko euh, noo tudd mun ko tafsir mun ko déedéet mun la tafsir mun ko raw réew ma sërif loola jàng yaa ko wax léegi sant nga samedi la ba muy ñëw ci la sëñ sërif da ko ni li ma xam ci yow boo demee ca sama ya ca ci joxuñu la cër joxuñu la jàkka ja ànd noo yow warmaal la lu leen jiñ ci yàlla dëkk ci timis la ñëw dafa dem jox ko jàkka ja wax ak moom ndeysaan ndeysaan bam si looree lan ko sancal ci la wunte eh. moo tax ci la buubu mm-hmm. bu bàyyi sa jégal mi ko sanc mooy magi ma jamaay sa jégal mi sañ jur sañ ci la mag ña dem taaw ne fa sancal ci la ci la moo tax ci la gii mooy gu mag waan géyee barkeel dinañ ñëwaat ci cille gi ci euh, maanaam euh, sëñ Ablaye Fall Ndar ak mag ñi mu àndaloo nag Euh, waaye euh, sëñ Massayar euh, ma seetlu yow di ci ëpp maanaam ci say kàddu dama ciy dégg xel xelkom di ci dégg tool yi di ci dégg yu ñu demee ana waa si ci la ñoom nu ñu def ak loolu. Cheikh du Basir. Mhm. daanaka waxtaan wi moom dama ko jébbal sunu xarit. wér na wér na moom ñoom yàlla. wér na mhm. waaye xelkom. Mhm. day barab bu Serigne Saliou. bi mu koy wootee. Mm-hmm. dafa wax ni. Mm-hmm. damaa xool ñu bari bàkkaar lekk leen ba ne matam sawara. Mm-hmm. nee na sëñ Tuubaa ko ni ko dimbalil jaam ñi. oh. na ma fàkk àll bi di xel koom. daan ne fi mu nekk ci nit. ne na raxas der bi taxul mu dañ. taxul mu dañ. jàll ko. taxul mu dañ. bàkkaar dafa dem ba ci yuq. bàkkaar ne fa. daal ne xam ngeen lu koy dindee ñu ne déedéet mu ne ñaqal sëñ bamba ñaqal sëñ bamba nee na ma fàkk àll bi de xel koom mm-hmm. Mm-hmm. moo tax su ma déggee ku naa dem ma xel koom mm-hmm. damay xam ne xamoo kon li tax xel koom jóg xamoo ko de soo ko xaman bu sëriñ Saliou addoo képp da ngay daw wuy ji bilaay bilaay bilaay ci la nag duñ ca lu ndaw ndax foo ko sëñ ba demee tam sa wootee rek sëñ Ibrahima ngi ci wetam waaw mais sëñ bay xalifa def ak sëñ Fallou noonu la daan def yii fam njabootam gépp indi. ñàkk këram boole ci ne ko suñ mu demee daan defee. du fa bàyyi kenn. ba ndigal li daanu. sëñ bi ñaan. sëñ bi laay dolli si doog ci la. ba ci ay rakam bàyyi sëñ bay yàlla na yàlla loo koy ay leeram bàyyi daam. ak bàyyi baaram may di xalifa tey. ñoom ñëpp. ba ci bàyyi taala. ak bàyyi mataar mi caat mi. bu ndigal li masaan jóg. seen sago jeex na. seen jàmm jeex na. billaay bala ñoo am jàmm li Serigne Touba bëgg sëriñ Serigne Saliou. Hmm. da ko am billaay da ko am ndeysaan ndeysaan ma gis ne tamit euh, sama gars yi. Hmm. maanaam gannaaw benn bennal bi. Hmm. yenn saa yi ñu téye xiin yi foo xam ne. moom daal daanaka boo kiiwul rek mën a yëngal sa tànk. loolu moom waaw. xam nga xam nga. waaw. Euh, tëgg. waaw. Cheikh Fall na woote la boo wootee ba mbooloo mi ñëw. da ngay wéer bi te wax li li nga leen di doyee. dëgg daganul fépp kuy wote nak te xam ni boo tëggee gone yi jigen ni gor ni mag ñeeg ndaw ñi ñew jëfal sëñ bamba deug dagan na bu dajalo wëral galan bi hmm. te wax ñom lay seen njëriñ lay seen njëriñ bilaay lolu mu wax rek moy li ci nekk Cheikh Ibra Fall da ko daan wote waaw fofu la jaar ak waa Kaolack ndaysan ndeysaan bilaay ak barab yu bari hmm, hmm, ba ngay dem Tamba waaw ba dugg sax borom Malek waaw ba ba ko ba ba Gambie bii moo ji barki démb rek. yàlla yàlla yokk sa jàmm. Ah, ah, tabaski laa fa jóge ba tey génnaatuma. ndeysaan mhm. nga xiin yi. Mhm. ci gune yi boole bokku ci. ci. ndax fecc rek la. Mhm. tur yàlla. sama tu tànk yi nekk Kaolack. bu ñu tiimee sëñ Bay Xalifa ak xiin yi bu ñuy bàkkee xiin yi lay daxnu. ah moom de xam naa ne. waaw am na melo moom. kon loolu. am fa nekku ca. waaw. bu ci am fa nekk mhm. loolu du xew ndeysaan ndeysaan ndeysaan moom mii di mhm. bàyyi sëriñ mhm. fekk nañ ko ci la ba taay ak xiin yi ndeysaan waaye bu yëngoo da ngay xam ni lii yëngu war naa yëngu de war naa yëngu de ah. moo tax buñ ci boole lu ci bokkut serafal da la wax ni yoonu sëñ Bamba wii lu ma ci génnee ku ko ci boole boole bokku ci bokku ci ne lu ma ci boole ku ko ci lu ma ci génne ku ko ci boole boole bokku ci waaye ma ci lu ma ci boole. ku ko ci génne génn ci la ci la ci la waaw. Mhm. Mhm. kon foofu la yëf yi nekk. Mhm. sikar si. buñ ko téyee fan ko war a téye. góor yàlla goo taxaw ci kanamam. mu yëg yàlla. ndeysaan ndeysaan xaw ma ko yëgut yàlla. macha allah macha allah <laughs> eh, sëñ Massaer Baye Jamil eh, Baye Jamil xam naa boo seetee waxtaan wi fi mu toll ak eh, Baye Silla ndeysaan yàlla na ko yàlla yokk wér maanaam li mu leeral lépp sëñ Massaer ndeysaan nga xam ne ci la googu man cant ga rek a ma jaaxal sant yi waaye daal bu sant doon Cissé moom mu gën a neex euh, maanaam ana alhamdulilah <laughs> kon kon yow ana yow maanaam lan nga ci mën a indiwaat ci ci ci ci ci diggante maanaam sëñ ab lay Fall Ndar ak ñoom taxawaay bi nga xamante ni tey leeral nañ ko ci kër Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridine ndeysaan jërëjëf xam nga sëriñ moom daal dafa sa xorom bilaay moom waxam bilaay <laughs> daa xoromu mhm. dañuy def daf da cee war a ci mhm. wala war na yàlla ndeysaan war a daa das loo ko bëgg a dagg mhm. léegi nag eh, xam naa loolu wax ci sëñ Ablaye damm xalim ak bàkkaar Mor Bunte Seen ca ca xo gi sa gi ku dégg bi dem àjjana sëñ Mor Binta Seen ma nga dëkk ko ca xiinam nga ma yoroon ko dégg taxe la waaw moom borom moom borom kii la li ci doon li ma ci waxaat mooy. daa am na sëñ wax ci biir lim li am ndigal a woote. ci ndigal yàlla. loolu laay kii. sëñ Tuubaa moo ne yàlla moo ma diggal ndax dafa rasulaay da doon nëbbu. sallallahu alayhi wa di di di di di bi. ba yàlla na ko bérélal. bérélal. sëñ Tuubaa dañ dem ba yàlla na ko bérélal. na nga leeral jaam ñi ni leen ni yow. ñu mm-hmm. ngi ne amarani rabbi. Mm-hmm. daan o sarriha. yàlla digal na ma nag ma leeral. ni anaman aradal xayra fii kilti daareeni falidus bi ko xey bëgg nga ko xey bëgg nga dem aljanna bëgg nga mucc àdduna ak alaxira yàlla nee na ma amara ni rabbi yalla neena na ci man kenn du ko wax nak ndax yalla neena am way yalla neena mom bari wul yalla neena la gay def moy xaalalaaw way yalla nee ma man yalla digel na ma seigne touba Rasulullah nee ma kon moo am lim ni moo am ndigal a woote. Mhm. diis na waaye dëgg la de. Mhm. waaw. Mhm. sëñ Tuubaa eh, daal di wax ni yàlla dafa ma di ma di ab wéeruwaay. maanaam nasaxali wala sa mbir nii yan siw wa indi nii bii ximan moof saxu lépp fu lu baax nekkoon yàlla jox na ma ko. waaw nasaxali maa ngi rékki lépp indil ma. waaye nag ñun ko ah mbaa ëllëg jamono kenn du ñëwaat bañ récci ko ci yow jox ko keneen mu ni wala sa mbir nii yan man yàlla du jël ca man yóbbu. ndeysaan ndeysaan lu tax mu ne wax indi ni bii ximanu mof saxu maay wiru waay maay làquwaay bi mhm. mel na ko lu wax loo tax loolu nag mhm. mu la saalika fa lu laahi yuuti yi la si yasaa o waxaali xul bi lu si mhm. loola baaxu yàlla gu ma yàlla defal yàlla nee na ma waxal ni wéeru leen ci man waaw yàlla nee ma waxaal lii xul bii lu si yàlla nee na ma waxal ni wéeru leen ci man loolu wér jërëjëf la ca doogaat mooy mooy dem li mu wax ci baal ndigal woote sëñ Tuubaa dani dama ko wax rek olof yi bañ indi kii ndax bañ a guddal daane képp kuy woote te jëme sa woote ca yàlla ak rasulullaahi te a wa ajuwoo ci man ci luy feeñ dafa ko ci lu nëbbu ah. te siyaare si woo ma ah. waaw waaw def na si yàlla defal na ma mhm. mooy yent yam waxoon yàlla defal na ko benn bii ca la bokk mhm. mu ne kuy woote ca woote sa woote nga jëme ko ci yàlla ak ci rasulullaahi te aju wala mu ñekk mu taxaalekan biya aju woo ci man fi sirri wal alani defoo ko ci lu feeñ defoo ko ci lu nëbbu wala mi sun xale naa ci siyaari si woonu xanaa nga beru fa ino yàkko daal mu diral maa xaw mi suñ tabaane réer ngi réer saw nit ak ko ànd ak yow moo tax kon woo aw nit lu garaaw la woote aw nit ñu topp sa gannaaw. Mhm. lu doy waar la. jërëjëf macha allah. damay damay damay bañ a woote du ma xam fu ma jëm. Mhm. du ma xam fu ma jëmee mbooloo mi. Mhm. loolu loolu. loolu yomb ta wax. yomb ta wax woyof tay ku xam dara. des gan ak yàlla. moo mën a wax loolu ci nawleem. te boo sëñ Tuubaa booba bi muy doog a woote. doomi soxna yëpp nawle leen ko jàppee. te de bu yonente bi jàllee du nawleem kenn. ñëpp a baax nag. ne baax bu dee bàkku gën a ak siwul sëñ Bamba du moroom. du morom de. te foo xool gis ko. doomam yi ku ko am. kenn dëkkam bii ku ko am. kenn jumaayam ji ku ko am. kenn seexam yi ku ko am. kenn taalibeem yi ku ko am. moo ko am fukk yoo mën a dajale. te kenn mënu ci am benn. soo ko defee nawle. moo xalaat xasida yi ku ko am. ilaay ilaay. Musaa da ko di doo nit doo jinne doo malaayika doo kaa inaat ci laay te doo Musaa sañ sëñ bay jaxase tontu ñaari wàll yu lunu ni ko niru nga yàlla aw defin nu la ko yonent bi aw doxin deesu la xam deesu la mil yàlla nga ji ñuru nit te xanaa xamu sañ sëñ ma yi mooy yàlla yàgg na fi waaw bakk de bi ko sëñ Modou Kara di wax ci biir néegam mhm. baa doo la génne ko murid yi ànd ak yaa ni dal dal ci ko am ma ne jaamu ji leen yàlla ndax ngeen diis mhm. sëñ Bamba ku muy tiitloo diisoo mhm. sëñ Bamba yàlla waaw ku muy tiit ku muy tiitloo diisoo sëñ Bay Sall wax na ko ko fii mu tibb suuf surtout ci gémmañam mu yàbbi ko abbu ko dem marchandu ba jóob ne suuf yàlla saa ngi nii ñu jënd ko muy lekkatu xaalis mu ñëw ni ko boodu woon yàlla doo mel nii nan bàyyi wax ji mhm. sëñ Bamba kenn xamu ko mhm. xam nga nu ko nit di xamee waaw sëñ Jamil mii lim am ci sëñ Bamba la ci xam mhm. li nga ci am nga ci xam li ma ci am laa ci xam kenn du ci xam loo am toll fa la xam yem si loola ko wax ndeysaan ndeysaan <laughs> waaw xam naa bàyyi si la sëñ Ablaye Fall Ndar am mag ñi nga xamante ni ñoom la àndoon ak ku ci mel ni seen wajur wa ana ànd boobu nan la demee woon ak lu sabab tey maanaam euh, seen wajur wi di turandoom bi njëkk ci ñi nga xamante ni mën nañ leen tuddee ay turandoo. Euh, co cofeel bu saabaam amoon ci moom rek. xam nga turandoo doom ci diggante nit ak nit. Mhm. cofeel la koy lal. Mhm. nit dina bëgg nit du ko tudde doom. waaw waaye nag soo dee bëgg ba cofeel dugg. Mhm. man ngaa jël sa doom bàyyi ñëpp tudde ko nit mhm. sa maam mhm. dafa amoon cofeel ci sëñ Ablaye Ndar ndax ñoo maase mhm. sëñ moo taala sax la sa maam maaseel waaye dafay yàggul ñetti la fi toog dem àjjana sëñ Ablaye bi mu toogee ay jëfam aku meloom aw fitam ak kës foom danaan wax lu ñëwagul woona Saal Fay magi buubu Fay mi yàlla yàlla yokk ay leer sama xarit bu baax ba ni ko kaay gisaaneel ma booba Sall Faye day gis lu rëy rëy ci tomb hmm. mu def nii hmm. ah ni ko sëñ Ablaye de waaru naa man damaa gis mbooloo moo xam ni damaa xool ba fu sama bët yem ña ngay poñante jàppal maag bàyyil ma je mi hmm. ngi nii waane yow mii yaa ngi nii ci dunka si gi yaag sa mbooloo mi mu ko Sall sob ko de xanaa xamoon ni bis benn ji nga gis o oh. waane sama yoon nekku ci maa ñu màndal barke alxuraanu karim mu daal ni ko tombaatal mu tomb ni ko ah damaa gis guurug yàlla gu jóge ci sawu bi xëcc jaasi yaa nga jóg mu ni ko xam naa ko ñoo bokk benn bàyyi wàllu yu kamaal la waa ne ma dara ndax maa doon seerafal te seerafal xutbu la te te xam naa kooko de mhm. booba diggante neexul mhm. mu tomb rek gis mu xuus ak fital yeeg paaka ko wàllu yu kamaal la lu mu jéem man ko waa ne dara wàllu yu kamaal la mhm. waa ne man mi Ablaay maa doon seerafal te maa giwuma ko te seerafal xutbu sabaan la sëñ Ablaay mosumaa gis ku amee ni mu fit lu mas a wax am na. nit tooñ na ko ba bët ba xong mu di ko tëkk kooku mel ni sëñ Abdoulaye du sëriñ. du du seex. naka yooyu romb ko rek bu ku bëgg a xool ku bëgg a gis ku dee tey dox xoolal kee ca guddi ga ab sàcc naaw tàbbi këram waa ji tatafu ko sàcc ba jàng ko mu dee. oh. xanaa xam ni léegi la ñu dem ba yàgg mel ni gaa yi mënuñu dara. léegi. li gaa ñi ñime. bu fi sëyee boo ma yàlla nekkan. waaw. du ko ñeme. ngay dem baara. day daa am ñoo xam ne lan denc. Mhm. àddina jaral lu leen génne ko am na ñoo xam ne leen denc ñu seen catul làmmiñ boo leen di tooñ loolu la wax nga gis ko. Mhm. kii fi ne nag sëñ Muntaxa mii. Mhm. xam nga lu mu doon géej gu sedd. c'est ça. da ngay xuus ba lab. mooy tur rek. sëñ Muntaxa mii. moo gën a aay ko fi masane. c'est ça waane ku ku gaañu ci moom yaa gaañ sa bopp du gaañ kenn. Mhm. waaye billaahi am na foo xam kooku fa jëmee. Mhm. boo fa duggee. Mhm. dootoo fa génn. xamaa la ko may. déedéet bari ngërëm. laay bari ngërëm. ku mu jur gërëm nga ko ku ko mag gërëm nga ko. amatul morom ci réew mi. te li ma xam ci moom ci cëriñ. lu ni tollu baa lu ko ëpp laa xam ci moom ci murit. ba xam ni ku la gën a rëyug doomi soxna. moo la gën a tuuti murit. ku la gën a rëyug murit moo la gën a tuuti doomi soxna. yett yi la dan fajj ca bu jëkk mhm. bir bu do mi mhm. soxna ci do mhm. day wor pul da say, say pul da lan say say bi sëñ ñewugul ci ceetu da lan wor mi soxna da daan iñaan jëmin mi lay alquran ba tafsir ko di kan di fure ma mokkal alquran tafsir ko ñu diktal ku bëgg jang jëmil jëmiil mu romb ma ni ma kër sëñ diw la jëm ndax degg na ko am xam-xam la man gees ni ko min na de mo gëna am xam-xam day bañ mo wessu ko. lay ndaysan yo yo xewal. Mhm. señ ma ñaw mhm. mhm. ci le mu bax mi mu sel mi ba señ bi démé ci gëj gi ba ñew mu nuyu ko. di ko ni ma ñaw ci lu nga nekkat. set ga ak ragal ga yalla ak baña wax lu amul tax mu ni ko di jang alcorane bañ nga del ci oh, oh, oh. ndaysan mo na ci lu dëgg la ko sëñ Tuubaa jaar ba tas daara je jox koy murid de. sëñ ma ñaaw si la mu siiw mu kaag ma bambaa tas daara je ñàkk mu ni ko ma ñaw da nga gore wax ko wa wa waa ne danoo ba danoo xam ni boo dellu see dootul dara fi sawet mu leen alxuraan bu ngeen ñaanee du noonu ndax mbóot mi laa yóbbaale mbóot mi laa yóbbaale de <laughs> xanaa xam nga sëñ Tuubaa mooy alxuraan murid yi ñime wun yenn yi bàyyi ko ñime sëñ Tuubaa ab kaamil la ndeysaan ndeysaan maa ngi wax ni ko amul kaamil looy abib jukki mhm. bi xam nga lu mu doon kaamil bilaay alxuraan kaamil mhm. sëñ Bamba kaamil Cheikh mhm. Rafal kaamil sëñ Saaliw kaamil bilaay xaatam Mhm. mooy mujj moo am ñëpp mhm. yonent yëpp Muhammadu Rasulullaah mooy seen kaamil téere yëpp alxuraan seen kaamil mhm. mu jàndit seen kaamil donc bu mas a topp góor yàlla guy lijjanti si jamono si kaamil jamono sëñ Bamba kaamil ku ko weddi yonente ak ku man di sa bi kaamil la kaamil la sëñ Bamba kaamil la Cheikh Rafaay kaamil la sëñ mujj ñëw am mujj kii sëñ Bamba fonkal da ko mu ni jàpp mun koo kii kenn mun kitaabu laahi ba mu demee ba xam ni sëñ Bamba mu feeñu ko ni ko ah maa doon laajkat mu ko xanaa mu xamu ni ku mu fi jiitub jukki li man mii may bi. oh. <laughs> ndeysaan kaamil <laughs> mhm. jamono ji nekk nag kaamil bi lay ñëw. a mhm. ñëw. Mhm. boo ko sëñ Bamba nag fi mu ne nii. sëñ Mor Mbaye Cissé dafa mu bëgg ma moo ma jëkk wax ni yàlla topp la dara. ndeysaan ndeysaan. ni alkaat yi ñu ne ah mu ne eh, Baye Fall ko xeexate moom nag ma ko tëjal kaso yàlla topp ko daal bu leen ko toppandoo de. te. man. Mhm. ku ma fonk lu wàllu yu fonk dama sëñ mu demee te noonu la ma bàyyi yàllaa wan. ma ça man samay talax talaxe ba fekk ko ci biir néegu biiram maa ak doomam fekk laa yónni doom ji doom ji romb ma sama xel tax ma topp ci moom rek ba àgg ci sëñ Modou fi muy fanaan. Mhm. weesu naa ñaari saal àgg ci moom. Mhm. muy dee doom yi ni ko sëriñ ku ko woo bëggul sax ma dégg ko. naka laa ko dégg daal di jooy di ko xir rek. xir rek xale maa ngi tuub dootu am mukk mun na sàllaaw de sàllaaw de sa xir googu de moo la andi fii waaye du ñàkk teggin maa ngi ñaan yàlla yokki leeram amiin barke Cheikh Khadim amiin dara ji Serigne Touba macha jataay bi mhm. sëñ Talla mi ma fi yebal mhm. dañ ko naqaree xam te ma am lu ma xam ci moom mooy mhm. ñaareelu doomu sëñ lay Fall la te wala mës ta bëgg doon dara te kanam sëñ Modou Ablaye lii may wax nii nag. kuy bàyyi faal tey wujji digal. xam nga ko. sëñ bi Ablaye borom waxi murit Saadix. waaw mhm. mhm. mbubam sax mës set. Mhm. ba fi ne bëgg ko. ndeysaan ndeysaan. waaye nag yàlla fay na ko rakk yoo xam ni. lu nu joxañ ñu dóor mu daanu. maam Cheikh ca la bokk. sëñ Bas maa ngi ñaan yàlla yokki leeram. amiin sama maam mbenn xumaa ko meññi. Euh, maam Mbène bu masaane kër sëñ Ablaye Fall la sama baay dugg si ñu ànd ak moom. bu sëñ Ablaye toogee fii yaa Mbène ne ca kees gu mujj ga. xam ne dama cinquante mètres. bu nee Mbène xuma. boo ne tekk rek yaa Mbène sukk. daawul wax kenn woon ma Mbène xuma. Mhm. la Mbène. Mhm. kër gépp riir. Mhm. loolu nag sama baay doon na ko ci moom. ndeysaan da nekk buntu xombal. bu ne indi reer bi nga di ko dégg. non Mati Mbaye mooy ndey kii. andi leer bi waay ña nekk xombal di ko dégg. loolu mbirum góor yàlla la ndax dënn bu amee leer. wax ji lay sori. dëgg la maa ngi ñaan sëñ Talla gudd fan. Mhm. ndax sagal gii ñu ko sagal ci Touba TV. Mhm. jaar ko ci yow nga woo ko mu yebal ma fi maak sama rakk ji. Mhm. loolu tuutiwul. ndeysaan ndeysaan. nun kun ci boolewul ñu boole ci suñ bopp ndax dañ cee bokk. dëgg la. suñu suñ sang si sant Mbàkke nii. ma toogee ñoom di wax da naa kii daa yab ñii déedéet. damay indi dëgg rek. Mhm. te ku ca nekk di saab xarit ku ca nekkul ma soof la nga soof ma. Mhm. man ñëpp laa bëgg waaye kenn ci yoon laay topp. dëgg la. Mhm. maa ngi ñaanal sëñ Seexum sëñ Saaliwu. yàlla guddalu fanam. ak magam ji sëñ Sidi ñu topp seen mag yii. ba ca sëñ Daamata ndax damaa bëgg yoon wi. ndeysaan. sëñ Daamata nii ma ak kurus ku maa ngi siyaar bu euh, sama maam jooju nga xam ne. kooki dama faa dem di jooy. ñeenti junniy dongo ak juróom-ñaari téeméer dafa nekk. sëñ Matar la leen dundal moo leen di wodd moo leen joxe daal. ñuy sant yàlla di tali alxuraan. sëñ Abo yónnee fa ñaari million mel ne lu jaxasoo ba mu ko yëgee daal wax ni daara ji maa leen war di dundal. keroog damaa jooy mm. sëñ aboom sëñ fallu mm. soxna maam say fall mi ko meññet sëñ mu dem taa bokk ndey ak bàyyi man ko murit nga bàyyi fall nga mm-hmm. ku la gën ni jaay nekkul Touba ku la gën bàyyi néewu fa dëgg la macha allah ginnaaw sëñ Touba mm-hmm. ku toll ni sëñ fallu mm-hmm. ku mu sëñ Modou Moussa rek ni toll te da koo mag sëñ Mourtala rek ni toll danoo bokk bàyyi mu nim caat tey mag lée eh, bëgg démb dégg nga sama waxtaan wi dama ni sëñ Mourtala kenn magu ko gaa yi ni teg ma ne bu ñëwee ci kaw lay taw lu waay yor jox ko bu julli jotee mooy jiite bu dem ñaanal mbooloo mi. ku ko mag kenn mag gone day toog ci suuf ku soxla ndox yónni ko. Mhm. continuer. waaw xam naa kon dangay tàgguwaale mbokk taalibe yi rek ndax daa mel ni ñu ngi wax nañu waxtu wi euh, daanaka mën na sëkk. waaye di ñaanalaat bu baax rek euh, maanaam euh, sëñ Modou Abdoulaye Fall Ndar suñ borom yokk ay leeram borom waxtaan yi. mu saadi nelawee ñu yóbbu ko ca bàyyam. Mhm. coow li noom maa dem ca kër ga. waaw moom de xanaa. sëñ si dim sëñ fekk ma ba ni togg leen lekk. Mhm. mu dab lay nelaw ñu yóbbu ko fa bayam seigne chidi du ci wax dara xam nga ginnaaw bi lu seigne chidi waxam mo mm-hmm. la loolu da jëru ci wax seigne chidi mm-hmm. Sidi waxtaan ndeysaan ndeysaan loolu da jëru ci wax yalla ñu ko yalla da xam ni seigne Tuubaa mësa top cheikh bi la dara dedet seigne Cheikh Mbacke gayne ne farma dara dara wax ni Cheikh Fall Baye goor ak dan xariloo mm-hmm. ko xam ci ñom leneen lu bokku ak li ma xam bu mako wax ànd day dem ba ki nga andal xam ni mom nga andal du bëgg a dégg sadu lu dul sa lu baax. sëti sëñ bamba yi ñoo goree ndax sëñ bamba gore tam moo leen defal ngor ba ko nga tàggu mbokk taalibe rek waaw ah, xanaa nuyu waa télé bi yéen ñëpp <laughs> tàng ndeysaan ndax li may yëngal ci man la ne non baax <laughs> maa ngi nuyu Cheikh Balla ak jëwli dem alaaji Mbakke Faye mm-hmm. maa ngi nuyu

ndax gone yi. lii may wax moo leen di indi. boo dee xawee rasulullah yeeg euh, saaba yeeg nag moo yow kon fekkiwul xamuñu ko. Mm-hmm. doo jaar ci ko ko fekki xam ko. bilaay ku jot ku jot jot ci gaa. sëñ bi moo jot. ndeysaan dëgg la du ma ko weesu. jërëjëf si la ndeysaan ñëpp gërëm ñëpp di sant ñëpp rawatina sa jëmm ji. ndeysaan ak sama xarit su ma doon wut loo bàyyi faal bu dëggal moom laay jël si mhm. su ma ko mhm. gisee duma ko weesu noonu mhm. nag sëñ Ibra si la ci ci te waxal na ko saa baay ni ko buñ ma joxoon dara ne ma jox ko kook seexi ba du ma seeti ko sant faal yow laa koy jox loolu yee ma waxal ci sa sayyidina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam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 ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan sëriñ Ablaye Fall Ndar yaa ma doy laa ilaaha illallaah illallah sëriñ Ablaye Fall Ndar yaa ma doy ndeysaan ndeysaan ndeysaan la ilaha illallah laa ilaaha illallah muhammadu rasuulillah jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba man na ko de ndeysaan. jaaraama nga Israël naa waxtu wi rek. waaye nga tàggoog mbokk taalibe yi rek. jërëjëf Cheikh Mamadou Bassir. Mhm. di seeraat bu baax baay Jamil. ndeysaan. di ko ñaanal sama borom yàggal ko te wéral ko. ñun mhm, ñu ngi koy teewlu saa su ne. Mhm. jotaay yi. ndeysaan alhamdulilah. waaye ni ko Baye Serigne Baye Serigne waxee rek. ku ñuy bàyyi xel la. ndax maam Serafal ji. Oh. te noonu fu mu ne rek mën na fa baax. kii boo gisee ma am ci moom yëg-yëg ak cofeel. Mhm. Cheikh Fall ji rek a ko waral. képp dong ndeysaan. ñun nag dañoo demaale géew. Mhm. bi ñu juddoo ak léegi jëfandu fi lu ni may lii. Mhm, waaye que dem yóbbaale koo koy góor. koo koy góor. monsieur Ibrahima Sylla. te sëñ Ibrahima Fall Ndar daan ëpp ci moom. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. kon. mi ngi siyaarewaat bu baax. mbooloom. monde entier bi laay wax. adduna bépp. rawatina ñi nga xamne dañu tak ci man moy mbolam talibé yi tuddu nga sang Mamadou Mar ak seigne Fallou ko italy ak Baye Fall yi ñu bari ba ci wa kaolax Tamba ba ba ngay dem Gambi ñepp nga fa ba ba ngay dem Bamako ñepp nga fa ma ngi nuyu ñepp wa Mbour di nuyu bu baax sëriñ khadim sey khadim ndax bu nu joté ci sa jëmm yalla ak moom tax waaye di nuyu bu baax it ñi nga xam ne ñoom lañ bàyyi ci la ak lu ko wër ndax ñooñu day bi ne télé bi lañ jëm si rek ñëpp ko bàyyi xel dëgg la ndeysaan fi ne ñëpp a ma soxla ca média yi waaye daanaka dañ koy moytu sax waaw ndeysaan ndeysaan dëgg ndax li nu yor dañuy wax ni ndëndum buur la kenn du ko tëggal baadoo la yóbbu woon ko fépp mhm. te daanaka ñetti at a ngi nii yoo xam ne ñëwuma sax Ndakaaru dëgg la kay kon boo wootee sëñ Baye Fall Ndar mhm. sëñ Talla yebal nu maag sëriñ si la Baye Fall suñu mag mhm. ñëw rek la ñuy def ay Ndakaaru sax kenn gisatuma ndeysaan ndeysaan ñoom ca daara ji ci la toog ndeysaan xanaa léeg-léeg na doxantu gën a dellu seet ndeysaan ndeysaan waaye Cheikh Mamadou Basir ña ngi lay nuyu bu baax te di jaajëfal di nuyuwaat Baye Sëriñ te di ko ñaanal yàgg àdduna te wér waxtaan wi am na solo yëg nañ ci lu bari waaye daa waxtaane góor nag muy sëñ Ablaye Fall Ndar damay wax ne li sëñ Fallu doon kër sëñ Bamba la sëñ Ablaye Fall Ndar doon kër maam Cheikh Ibra Fall ku fi doon dara ko de ndeysaan sëñ Fallu kër sëñ Tuubaa sëñ Ablaye Fall Ndar kër maam Cheikh Ibra ku fi doon dara moo la ko def ndeysaan moo doon moo doon sama baay dama ko dinaa ci def ci mom fit def ci moom ci maati ci mom la ko wax ba keur Serigne Fall gépp xam ne comaataay ci mom mhm. lolé mënu def ni ndeysaan ndeysaan ndeysaan Serigne lay Fall ndal góor la ci góor ñi la mhm. kon yalla nang ko yalla fayal amin barke sul Khadim yàlla yokk ay leeram amiin amiin te taas ci di ñaanal Serigne mhm. Modou Modou Cheikh Bintou ak sëñ Jili Kine maam Cheikh Rafal Thiès. Mhm. ak mboolem. Mhm. njabootu sëñ Moroom laay gépp rek bàyyiwuñ kenn bu ñu demee duñ matal. waaye ñoo ngi siyaar kulluhum. Mhm. te di leen ñaanal. sama borom bàyyi leen fi seen maam daal lu ci wax. bari lu mu bàyyi. dëgg la dëgg la si la jërëjëf. am sëñ Fallou la. ca kër Serigne Touba. ndeysaan jërëjëf jërëjëf. kon ñu ngi siyaaraat. kulluhum. Euh, euh, Cheikh Malick Diouf ca Bambey. lay sama lépp. ne sëñ baa ngi ci liggéey bi bu nu noppee rek fa lañ jëm noonu ko bàyyi si la waxee dëgg ki dem rek dana am tout tànk bu gën a jamono mm-hmm. ñu indi ko foofu tudde ko fa tudde ko Serigne Cheikh Fall jëm mm-hmm. mm-hmm. mu sëñ Modou Moussa Fall maam Cheikh ci xol yi danoo defal loo xam ni ñi ko mën ci ban ñun ñun bëriwut sëñ Cheikh jëm fi mu yóbbu liggéey fi mu fekk liggéey bi ak fa mu ko yóbbu góor doxu fa yàlla nañ ko yàlla fayal mm, xam naa waxtu bi rek maa ngi siyaare njabootam gépp nag mm-hmm. mm-hmm. Omar Dumbia, mm-hmm. ak soxna Mbaye ak euh, soxna soxna yëpp rek bàyyiwuñu kenn ndeysaan ndeysaan ma waxee ndeysaan euh, rek wax daanaka wax nañ ñëpp macha allah di jégalu bu baax baax macha allah sëñ ma seer waa rek kenn xam naa nga tàggu mbokk taal rek jërëjëf yàlla sol xam ma ngi jégalu ma ànd ak sama tut tànk bi mhm. Mohamed Fall ndeysaan sëñ Mohamed Fatick la bàyyikoo mhm. nekk ak man ca daara ja mhm. di tut tànk waaye di ko bëgg lu baax dëgg la macha allah ñu gën koo xam ci yi xam gi yi fu mu jëm rek mhm. ànd naa ak man ci liggéeyam sëriñ ndeysaan ndeysaan ñu koy ñaanal tey sàkk ngeen mhm. ñaanal ko nag mhm, sama borom yàggal ko amiin amiin bari Cheikh Khadim jërëjëf jëf ñoo ngi jégaluwaat bu baax di siyaar ñëpp rek di jégalu bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf ak bàyyi jëmin waaw dama ne ci at ma atum njëriñ dama ne suñu blaat njëriñ yi doon dox ci kaw suuf nii nga xëy du yu naaw waaye dañu mel ay soldat rek di kii nii kër la ma fekk at moom sa kër la ma fekk waaw at moom foofu la ma fekk ndeysaan ci la wallaay ndeysaan fa la ma fekk kon kon kon seen wees diggante yàgg na yàlla dëggal taxawaay baax a baax barke borom Tuubaa sëñ Abdoulaye dégg daana wax ni am na melokaan yoo xam ku ko mel ëllëg maa seeta ji du mën seeta ci kanam Seex Ibra Fall ku ma ta xel la Baay Fall waaw ëllëg maay seede ci du mën a seede yeneen melokaan yoo xam nag nit war foofa te baax nag waa kër Seex Awa Balla ñu sëñ Ceerno may nekk fa ci kër Maguette ca ginnaaw te wax day bàyyi xel émission bi di ko siyaar moom waa këram yëpp waaye soxna Njaay ma itam di ko siyaar ñaan sëñ Mudu euh, Sàmb doon taal Seex Awa Balla te wàcc liggéey yàlla yàlla yokk ay leeram seen kon njaay mbay mm-hmm. ak sëñ moo taala ña ngi ma fa nekk ak njaboot gi yëpp rek mm-hmm. kon képp kuy seetaan daal siyaar nan la mm-hmm. dina ñaanat yàlla na ko fekke waat dara seex sëñ si la jërëjëfati sëñ ma seet jërëjëf sëñ bas jërëjëf yàlla doxaay bi yàgg jërëjëf jërëjëf Baye Jamil sërif ñoo ngi jégaluwaat bu baax di nuyu tuddkat yàlla yëpp ndeysaan ñoom laa waroon a jiital ndeysaan di ko tàmbale ci sëñ Seex Ndooy di ko ñaanal sama borom yàggal ko te wéral ko bàyyi ko fi ba lu mu yéene sama borom yàggale ko waaye Moussa Kallaamu laa ñoom ak Ousmane Diouf Sikru laa ak mboolem tuddkat yàlla yi ay da ñoom ñëpp ñu ci biir tur yàlla bi macha allah leen wax ne jataay bi daal jataay bi maam Cheikh bi la mm-hmm, mm-hmm. kon ñooñu seerafaal yi ñoo ko seq mm-hmm, ku ñëw na mel ni mu war a mel rek ndeysaan laa leen di sañ waaw muy waa xidmatu maam Cheikh Ibrahima Fall yi ndeysaan moom la sëñ Massaer ñi nga xam ne maa ngi ñoom ñoo leen bokk Euh, bu ko defee nag maanaam ndeysaan mu mel ni euh, Mbaye Abba Zikrula bokk ci ñoom di jàmbaar yi sëñ laat moom sëñ Mour Ablaye Fall moom sëñ Ablaye Fall ndar noonu koy siyaar bu baax suñ xarit bopp euh, waaye nag sëñ Maam Diop Xuru Mbàkke moom bokk na ci ñi nga xam ne ñooy coordonné maanaam kër maam Seex yi ñu war a waxtaanee waaye noonu ba tey sëñ Saali Mbaye Kawsara bokk ci soppey talaatay Cheikh Ibrahima waaye sëñ Xaadim Medina ñu nga xam ne yàlla dogal na maanaam liggéey bi moom it tege ci loxoom kon ñoom ñooñu ñoo ngi leen di sant bu baax di leen delloo njukkal di ñaan nag suñu borom defal ñu tawfeex biir ak biti barki ki ñu doon waxtaanee muy Serigne Ablaye Fall Ndar nga xam ne ni ngeen ko waxee rek mooy am sëñ fàllum Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridine kon baay Jamil nga ñaan rek ñu yëkkati jotaay bi ba talaate bii di ñëw nga xam ne 21 eh, heures lay daw waaye nag ca buñ xëyee ca àllarba lañ koy tegaat midi incha allah Baye Jamil bisimilah. la, la.